asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu. ngi leen di nuyu yéen waa Madiana. sëriñ bi nee na mu ngi leen di nuyu yéen waa Madiana. ci turu sëriñ Cheikh mi fi nekkal sëriñ Souhaïbou. ci tur sëriñ Cheikh mi fi nekkal seriñ Souhaïbou. ak i rakkam. ak i rakkam. ak i njabootam. ak i njabootam. ak seexi sëriñ Souhaïbou yëpp. ak seexi sëriñ Souhaïbou yëpp. ak taalibe sëriñ Souhaïbou yëpp. ak taalibe sëriñ Souhaïbou yëpp. waaye ak soppey sëriñ son bu yëpp. waaye ak soppey sëriñ son bu yëpp. sëriñ Cheikh nee na. sëñ bi nee sëriñ Cheikh nee na. mi ngi leen di fàttali di fàttali boppam. mu ngi leen di fàttali di fàttali boppam. ragal yàlla ak jaamu ko. ragal yàlla ak jaamu ko. ak bëgg sëñ Touba topp ko te wóolu ko. ak bëgg sëñ Touba topp ko te loolu nag dara jiituwu ca. loolu nag dara jiituwu ca. topp ay ndigalam moytu na ko ay tereem. topp ay ndigalam moytandiku ay tereem. ndigalul sëñ Touba nag mooy ndigalul doomi sëñ Touba. ndigalul sëriñ Touba nag mooy ndigalul doomi sëriñ Touba. ndigalul sëñ Touba mooy ndigalul ku fi nekkal sëñ Touba. sëriñ Touba mooy ndigalul ku fi nekkal sëriñ Touba. tere gi itam noonu. tere gi itam noonu. sëriñ Abdul Ahad. sëriñ Abdul Ahad. dafa am yu mu génne woon tere ko. dafa am yu mu génne woon tere ko. bind ko. bind ko wax ko. wax ko. ànd cee ki bokkam. ànd cee ki bokkam. dogu ca itam. dogu ca itam. yàlla far ko ca. yàlla far ko ca. muy dox ba nëgë ni. muy dox ba nëgë ni. ku fi mas a ku fi mas nekk itam. di tere loolee. di tere loole waaye bi mu ñëwee ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha. waaye bi mu ñëwee ba ci Cheikh Mouhamadul Mountakha. mu yesa tere googee. mu yeesalaat tere googee. ci kanam addina. ci kanam addina. président de la république teew. président de la république teew. bokk yëpp teew. bokk yëpp tew njabootam gépp teew. njabootam gépp teew. mu wax loo ko sëriñ Bas mi mu jox kàddoom. mu wax loo ko sëriñ Bachiru mi mu jox kàddoom. mettit lu yooyu yii di am. mettit lu yooyu yii di am. naqarlu ko lool. naqarlu ko lool. terewaat ko tere gu wér. terewaat ko tere gu wér. wax ko ci kanam taalibe yëpp. wax ko ci kanam taalibe yëpp. mu mel ne boobe mu mel ni boobee. amoon na ab diir. amoon na ab diir. ñu yëg ne dëkk bi bàyyi nañ xel wax joojee. ñu yëg ne dëkk bi bàyyi nañu xel wax jooje waaye ñu teg ci diir. waaye ñu tekki ab diir. ñu di ko wayefal. ñu di ko wayefal. ndànk-ndànk ndànk-ndànk. ba mujj dellu fam mu newoon. ba mujj delluwaay rek ci lañ nekkoon. fii mu ne nag. fii mu nekk nag. da ëpp loxo. dafa ëpp ay loxo. ndax dëkk bi ab dëkk la woon boo xam ne. ndax dëkk bi ab dëkk la woon boo xam ne. ñi sëñ bi taamu woon. ñi sëriñ ba taamu woon. ñu di fi dëkk si. ñu di fi dëkk si. tànnoon leen. tànnoon leen. ñu dëkk ak moom. ñuy dëkk moom. ñoo ñee fi newoon. ñoo ñee fi newoon. ak seen i njaboot. ak seen i njaboot. ak ñañ yar. ak ñu yar. ba seytaane mënul ci ñoom dara. ba seytaane mënul ci ñoom dara. léegi nag. léegi nag. dafa yokk. dafa yokk. ba doonatul ab dëkk. ba doonatul ab dëkk. am réew la. am réew la. fu ne nit jóge fa. fu ne nit jóge fa. doxandeem. doxandeem. dikk di doxee na la neex. dikk di doxee rek na ko neex. te doo déglu ndigal te du déglu ndigal te doo bàyyi xel kilifa yi du bàyyi xel kilifa yi leen faale doo leen faale di dund ci barkeb sëriñ bi di dund ci barkeb sëriñ bi woyofal kàddu ki fi nekkal sëriñ bi woyofal kàddu ki fi nekkal sëriñ bi loolu moom dafa war a dakk loolu moom dafa war a dakk léegi nag ku ne am nga ci responsabilité léegi nag sëriñ bi nee na loolu ku ne am nga ci wàll nag man ataa minkum munkaran man ataa minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi falyughayyirhu biyadihi wa in lam yastati wa in lam yastati fa bi lisanihi fa bi lisanihi wa in lam yastati wa in lam yastati fa bi qalbihi àggaguñ ci fa bi qalbihi nee na àggaguñu nag ci fa bi qalbihi sëriñ Cheikh nee na sëriñ Cheikh nee na jox na ma ndigal jox na sëriñ Abdou Samad mii ndigal ànd ci ak rakkam ànd ci ak rakkam ak njabootu sëriñ Cheikh bu gépp ak njabootu sëriñ Cheikh bu gépp naa dajale waa Madiana mu ne na dajale waa Madiyana gi nga xam ne moo ne ci bopp bi Madiyana gii nga xam ne moom Serigne Cheikh moo nekk ci bopp bi ndax lépp ndax lépp loxol sëñ Muntaxa la ne loxol sëñ mun la nekk waaye ku ne fa nga ne waaye ku ne fa nga ne da nga ko faa nekkal da nga ko faa nekkal doon fam sëñ Muntaxa doon fam sëñ Muntaxa kon nag moom kon nag moom mooy sëñ Muntaxa fii ci Madiyana mooy sëñ Muntaxa fii ci Madiyana man mii la jox kàddoom moom mii di Cheikh la jox kàddoom abo mii féeteeg man sëñ abo mii féeteeg moom te doy ko ci yaram cib yaram akuk jubam akuk jubam fab naa lépp teg ci loxo mu fab lépp moom Cheikh Abdou Samad teg ko ci loxo suñu aboo te moo yor village bi te moom moo yor village bi moo tax mu woo village bi yëpp moo tax it mu woo village bi ñëpp de quartier yëpp chef de quartier yëpp waaye yëmu ca waaye yëmu ca borom kër yi borom kër yi borom responsabilité yëpp borom responsabilité yëpp ñu ngi nii toog ñu ngi nii toog aboo bis na ki tey sëñ aboo Cheikh Abdou Samad ne bis ni ki tey am nga ndigalul sëriñ Cheikh am nga ndigalul sëriñ Cheikh ak njabootu sëriñ Cheikh yëpp ak njabootuk sëriñ Soy bu gépp nga takk sa ndigg nga takk sa ndigg ànd ak chef de village yi ànd ak chef de village ak chef de quartier yi ak chef de quartier yi ak taalibe yi ak taalibe yi raxas Madiyaana ba mu set wecc raxas Madiyaana ba mu set wecc ba lii na fi jóg na fi jóg te buñ mayeti kenn nga dugal te buñ mayeti kenn nga dugal ko fi gone guy football gone guy football fit wam am fit wam am ba ñeme ko ba ñeme ko bu leen ko ëppale bu mu ko ma nga ca wetu baayam ndax ma nga ca wetu baayam ci kër la jóge ci kër la jóge njaboot googi njaboot nan dajale seen njaboot nan dajale dara buñ ca bu fekkee fu barati ku ko defati nag ku lu ca war na ngeen ko def lu ca war ko def bu leen ci bañ dara bu leen ci bañ dara ku fi sol lu gàtt ku lu gàtt lu yelloowut ak bi na ngeen ko faj na ngeen ko faj ci yee ko ci yee ko yedd bu lankee bu lankee lu ca war a tegu lu ca war a tegu na ngeen ko ca teg yeneen yi nga xam ne it yeneen yi nga xam ne itam ñu ngi ko fiy def te neexul yàlla te neexul yàlla neexul sëñ Tuuba neexul sëñ Tuuba neexul sëriñ Suhaybu bi Muhammad yanna na ngeen ci teg seen bakkan na ngeen ci teg seen bakkan bii ba mu fi ñoom ñay def lu naqari yàlla ñoom ñay def lu naqari yàlla njagam ñoo amu fit njagam ñoo amu fit mu jaral leen lu ne mu jaral leen lu ne ne fang fangaral yéen ñi di jub yéen ñi ñàkk ci ak njub bu leen ci bañ dara fit wuñ am rek fit wuñ bam rek na am fit wu ëpp woowa na am fit wu ëpp woowa ba duñ ko sañ ba duñ ko sañ duñ ko ñeme na ngeen tàmbale raxas bi nag na ngeen tàmbale raxas bi nag ca marché ba ca marché ba ca fa yëf ya gënoon a bari fa yëf ya gënoon a bari ba ñëpp xam ko ba ñëpp xam ko jaw bee ngi toog jaw bee ngi toog waa waa ànd taxaw Madiyana ngi nii waa ànd taxaw Madiyana ngi chef de quartier yëpp a ngi toog chef de quartier yëpp ngi toog xam ngeen li fi xew xam ngeen li fi xew wóor na lii de wóor na la ne lii de bu fi sëriñ sooy bu newoon dana ko naqari lool sax ko xam nam meloon ci sharia ak sunna ak sunna ak bëgg lu set ak bëgg lu set ñu ne ko madiyaana nga madiyaana nga nale ñu ne ko madiyaana nga nale fa la ñuy jaaye sàngara fa la ñuy fa la ñuy jaaye yamba fa la ñuy jaaye yamba fa la ñuy defee lu bon lépp fa la ñuy defee lu bon lépp ñu di ko seetaan ñu di ko seetaan te yàgg yàgg dañ koy fekki te yàgg yàgg dañ koy fekki buñ goree dañ fay dañ ciy dem ba jeex buñ goree dañ ciy dem ba jeex ba jeex wala lu ñu ci fekk baax na sëñ Tuubaa defal nañu loo xam ne. sëñ Tuubaa defal nañu loo ak bëggam moo nu war a gënal suñu bakkan ak bëggam moo nu war a gënal suñu bakkan yi kon nag jaayante leen ak sëñ Tuubaa kenn képp ku gisati képp ku gisati kuy def lu naqar yàlla kuy def lu naqar yàlla na nga njëkkee na nga njëkkee wax ak moom ci njëkk yedd ko yedd ko bu nangoo bu nangoo bil xikma bil xikma wal mawxisatin xasana alhamdulillah bu ko nanguwul lu ca war a topp na ca topp waaye mat yaana moom na set li dox ci dëkk bi lii dox ci dëkk bi te am fu bari fu ne am fu bari fu mu ne ay seere ngi fi ñoo xam ne dundu nañu ñoo xam ne dund nañu ko danañ ci ñëw ak yéen danañ ci ñëw ak yéen na ngeen ko bàyyi xel na ngeen ko bàyyi xel ñu ngi leen ci alerte ñu ngi ndax bari na fu ñu raxasoon ndax bari na fu ñu raxasoon ñafa ne woon ñu ngi dugg si Madiana ñafa ne woon ñu ngi dugg si Madiana fekk si li fi newoon fekk si li fi newoon bu leen may leen leen ñu dugg ñi fi newoon nañ génn te ñi la ca des nag la ca des nag aboo jox naa la ndigal sëñ aboo si Abdou Samad ne jox na la ndigal waxtaan leen seen biir. waxtaan leen ci seen biir. organisé wu organisé wu. xool nu ngeen koy saafara xool nu ngeen koy saafara. mënta ta mënta ta ki dëng. ki dëng jubadi jubadi. lam ko jaral lam ko jaral. na leen jaral lu ko ëpp. sëriñ Cheikh wàcc na. sëriñ Cheikh wàcc na. man mi mu wax loo wax na. moom mi wax loo wax na. yaa ci des nee na yow yaa ci des si njaboo. yaa say chef de yaa say chef de village. ak bokki taalibe ak bokki taalibe yi. sëriñ Touba sëriñ bi sëriñ Touba day. musal musal nu. nu sowenu moo ko tax a dem ca géej moo ko taxawoon a dem ca géej ga waaye du jëmmi boppam lam ca daj lépp lam ca daj lépp te suñ jëmm yi rek tax te suñ jëmm yi rek tax suñ bakkan yii suñ bakkan yii warunoo sëñ Tuba warunoo gënal sëñ Tuba suñ bakkan yii warunoo gënal sëñ Tuba lépp luy bëgg ak sëñ bi lépp luy bëgg ak sëñ nañ ko jaayante war nañ koo jaayante ba mu am ko ci dëkk bii ñi wàll si nar koo yàq ñi wàll si nar koo yàq nar noo yàqal sunub dëkk nanu jaral lu ne jaral lu waaye kenn ku naan dëkk bi. waaye kenn ku nekk toog naan dëkk bi. te doo def benn benn effort doo def kenn ku ne tëdd rek. kenn ku ne tëdd rek. ña a faj duñ ko faj. a faj duñ ko faj. bu demee ba ñoom. bu demee ba nee nañ. gaa ñi nee nañ. dañ leen di neexal. dañ leen di neexal. ñu bàyyi mu tëdd. mu sedd. gaa ñi tàmbaliwaat. gaa ñi tàmbaliwaat. loolu na dañ. loolu na dañ. wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa